day Tekk Jël ak Bécaye man Tekk Jël dama yaakaar ay mbokam dañoo ñibbi Tekk Jël moo ñeme risque Tekk Jël moo ñeme risque diggante Tekk Jël ak Bécaye ndeysaan jël moom la jàkkaarlool Bécaye moo ñu wan ginnaaw ndeysaan teq jël at Bécaye ndeysaan teq jël at Bécaye ndeysaan teq jël at Bécaye ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan bii bee ngi noonu Bécaye moo ngeen moo ngeen bul weex li teq moo ngeen moo ngeen bul xonq li ndeysaan jël Saan Bécaye a teq deqi jël tey deqi jël moo ma la jël donc Bécaye eh, de Bécaye deqi am na ngemb am na ngemb lu xaw Bécaye lu xaw ko ci géew gi. Eh, Bécaye dajal na ko. teq da Bécaye daan na ko Bécaye daan na teq jël oh, doomu buun la doomu Fass Mbaw la doomu mbedd Fass la oho ndeysaan Bécaye a ngi noonu ndeysaan gis nga Bécaye jëloon noonu ndeysaan Bécaye jëloon noonu ndeysaan daan na ko jël bu daan na ko jël bu waay